النبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما آم بسبه نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما sunu loxo ci yonen wa abdu mutalibin min baduma رئيلا فتات زورة ذات المجد والكرم نبي و شي مودو أجمعين سلام ربنا دائما góor gi tàgg na yónneen mara alamraatin tuddu abi fa timati tabqil mamala ilayha wax yàllam turami nabi wa al a salama rabbina daiman am bisabihimi mbokk yi mu ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man seen mbokku Hadj Moustapha Guèye di doom ci Baye Maguette gay maa ñëw maa ñëw tey di nuyoo ak yéen waaye di leen ziar nag tabaarakallahu ci ndigalu kilifa yi ci ndigalu sunu taawu jur bu góor di euh, docteur Ahmadou gay Diaga waaye tamit ci ndigalu sunu ay sëriñ nag sëriñ Babacar Sy Mansour xalil général des Tidiane sëriñ Maodo si waaye ndégalu sama sëriñ sëriñ Babacar si Abdoul Aziz sëriñ Mbaye si Abdou ñu ñëw fii tey rek bu ñu déggee rek ngeen xam ne la daan xew xewati na mooy lan mooy sunu wayjur bu tedd bi nga xam ne moo gën aduna en mille 2015 di imam sëriñ màgget gay Koungheul nekkoon imam ratim fii ci Koungheul wax dëgg yàlla génn àdduna en mille 2015 at mu jot nag ñu koy defal ñaan tabaarakallaahu ren nag ñu jàpp ko le 25 décembre di altine bi ñu jëm muy lënd bi ñu jëm incha allahu rabbi mu war a nekk tàkku takkusaanu Serigne Babacar Sy radiyallaahu taala anhu war a amee fële ca quartier ñaari Baye Fall euh, ci dend ak hôpital bi euh, incha allahu rabbi euh, comme nañ ko doon defee rek lañ koy defee incha ndax ren ji moo war a nekk sixième édition bi tabaarakallaahu bu nu xëyee dañuy jàng kaamil alquran tabaarakallaahu ci ndigalu kilifa yi waaye ci teewaayu imaamu bi ne ci dëkk bi yëpp. ku ci mel ni imaam eh, Baye Alxaaji Moustapha Diop imaam Bamba Sall tabaarakallaahu ak mboolem ayma yi nekk ci dëkk bi yëpp Serigne Morsi Baye Daama Paa Mbaye Guèye Serigne Cheikh Tidiane Sy moom daal mboolem imaam yi nekk ci dëkk bi rek ñoo koy jiite incha allah ànd ko taalibe yi jàng alquran yëpp bu nu xëyee incha allahu rabbi eh, ginnaaw bu ñu jàngee alquran ba pare eh, nekk ci bernde yeeg yu mel noonu tabaarakallaahu waaye nag buñ buñ bernde nañ ba noppi bu ñu nee ba takkusaan dañu fa def benn wasifa ndax ku xam Baye Maguette Gueye xam ne taalibe Seydi Ahmada Tidiane la woon Serif radiyallahu taala anu waaye nag naan waayam nekkoon kër Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anu mu nekkoon taalibe Serigne Babacar Sy moo tax ba tàkku saan danañ wasifa incha allahu rabbi programme bi nag day teel a commencé parce que dañoo bëgg ginnaaw timis rek incha allah 19h euh, xale yi ma xam ne ñoom lay àndal di tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñooy tàmbali jotaay bi incha allah bu demee nag ba 21h. ñu def cérémonie officielle bi maanaam ñi nga xam ne ñooy autorités yi ne ci dëkk bi ak ñi ñu ko tuddee ñoom ñëpp ci nekk rek dañ fa jël kàddu ak kilifa diine yi teew ci jotaay bi tabaarakallaahu bu ñu demee nag 22h ki nga xam ne nag moom moo war a taxawee jotaay bi nga xam ne l'international la tabaarakallaahu képp koo xamante ni tijaan nga mbaa murit nga mbaa ngay xaadir mbaa nga yasee da nga koy bégee ñëpp ko bëgg mooy kan mooy son excellence Serigne Sam Mboup tabaarakallaahu mu nekk takkatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne. kenn dootu ko présenté fii Sénégal muy Serigne saam Mboup nga xam ne boo tapé YouTube bi maa nga tapé télévision yi foo tapé rek gis ñu teg Serigne Sam Mboup nga xam ne mu nekk jànkat international tabaarakallaa nga xam ne ñëpp ko bëgg moo war a déparé Tiwaawan nag incha allah rabbi ñëw euh, bégal nañu ñi ci ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye du ci wéet nag dafay ànd ak euh, sunu doomu baay ànd ak boroom xam-xam bu mag buñ naan Tafsir Malick gay nga xam ne euh, at mu jot rek mooy déparé Tiwaawan moom tamit ñëw ñëw ci waxtaan bi. ndax euh, bu ñu bu sëñ saam woyee ba noppi mooy jël micro bi nag wax ñu kana yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaye tamit ba léegi du ci wéet ndax dañoo am gan gu màgg goo xam ne wax dëgg yàlla ndax comme ni ko alxu comme ni ko Seydi xaaj Malick waxee ci téeram ba inna rasula bi xadril muusin ihtakimi nee na ndaw lu nekk rek dafay am darajaay ki nga xam ne moom moom moom tabaarakallaahu moom moo ko yónni euh, ndaw bi war a jógee Tiwaawan nag ñëw di sët ñu naan ko sëriñ maam Abdoul Aziz si ibnu sëriñ Mbay si Abdou euh, ndax ku ne xam na ne euh, tabaarakallaahu maam Abdoul Aziz doomu sëriñ Babacar si Abdoul Aziz di sët ci sëriñ Hadj Malick waaye di sët ci maam Dabbaax waaye di sët ci sëriñ Babacar si mooy jóge Tiwaawan ndax euh, ñun ñi sëriñ Mbay si Abdou moo ñu jox tariixa bi tabaarakallaahu boo boole ñu ak doomu nag bu naan sëriñ Mbay si sëriñ sëriñ maam Abdoul Aziz si di indi sëriñ Mbay si Abdou moo war a ñëw fekk la fi ay taalibeem fekk fi ay soppeem fekk fi ay xaritam tabaarakallaahu ñëw bégal nit waaye ñëw waxtaan ak nit ñi ñëw saafwante ak taalibe yi loolu nag bés bu màgg lay doon loolu nag bés bu tedd lay doon ndax nag wax dëgg yàlla euh, taalibe bu gisee sëriñam day kontaan kon nag bañ amee sunu sëriñ mu war a départ Tiwaawan ñëw fii ci dëkk bi nga xam ne ñëw na fi daaw jéeg waaye daaw ñëwtoon mais ren nag gisee nañu fan yëpp ci passé moo doon semaine mu promettre nañu incha allah dina ñëw ëxalu Koungheul loolu nag yokkute la waaw yokkute la ndax bés ba toll noonu bu bu ci sëtu sëtu Xaaji Malick départ Tivaouane ci ndigalu xalifa bi dafay ñëw loolu loolu yokkute la maa ngi koy yëgal daal jullit yëpp di ñaan na ñëpp génn teer lañu sëriñ bi waaye di ñaan na ñëpp génn teer lañu sëriñ Sam waaye di ñaan na ñëpp génn teer lañu tafsir waaw laaw ndax ñu mel noonu nag ku leen am ñu jóge Tivaouane di ñëw ci dëkk loolu nekkatul lu ndaw kon maa ngi ñaan képp koo xam ne rek yaa ngi dégg ka sunu kàddu euh, nga bàyyi xel bés bi lënd bi ñu jëm la le 25 décembre da amee fii ci Koungheul euh, euh, tabaarakallaahu kat si ñaare Baye Fall denn ak hôpital bi Hadj Matar waa bés boobu nag tabaarakallaahu ren ñu ngi koy jaglelee ki nga xamante ni moom mooy meeru dëkk bi di Alioune Badara li nga xam ne wax dëgg yàlla wéyjur bi baayam la xaritam la tabaarakallaahu bi ñu fa demee di ko wax dafa ñu danga ngaa baax sax waaye waroo woon ñëw ndax Baye Maguette Gaye ku xamal ci Koungheul dégg nga ko tabaarakallaahu kon moom moom lañ ko jaglelee ak ñeneen ñi nga xamante ne aussi ñu ngi ci biir dëkk bi ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci département bi parce que ñun yàlla daf ñoo xéewalee ñuy tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu toll dëkk bi ak lu wër dëkk bi yëpp ku tànt sa xel ñun lay daj nga woo ñëw ronu tànt bi béggal la ci yoon sallallahu alayhi wasallam moo tax am nañu ñeneen ñoo xamante tànn lañ leen ku ci mel ni sëriñ Ousmane Seck borom xurdaan ci parents yi la bokk sëriñ Moustapha Thiam waaye sa xarit sunu xarit di alxaaji Mamadou Diouf Kaaw euh, sunu su sa parents la bokk ku ci mel ni sëriñ Baye Morsi ci parents yi la bokk ma yi aussi ku ci mel ni Adja Mbombe Sall nga xam ne rakk la ci Fanta Sall taalibe Sëriñ Babacar Si nekk commerçante ñu bokk fondation Sëriñ Babacar Si moom ci marraine la bokk ak naan soxna Ami Dieye nekk fii ci hôpital bi di taalibe Cheikh ñooñu daal lañ tànn jagle leen bés bi waaye ñëpp rek ci la ñu bokk ndax góor gi wax dëgg yàlla xaritu ñëpp la woon soppe ñëpp la woon sëriñ ñëpp la woon bàyyi ñëpp la woon ñun ñi nga xam ne it ñun la yàlla dogal ñu xéewale ñu ñu nekk eh, ron tànkam di defam daan def mooy tagg say naa ma xam ne ci dëkk bi ak ci département bi ak région bi wax dëgg yàlla ñoo ñëpp képp kuy suñu soppe wala suy xarit wala suñu dëkkandoo ñu ngi lay woo ci bés bi Hadj Matar waaw loolu loolu rek yokkute la parce que ren wax dëgg yàlla ci côté organisation beeg lépp mooy dafa am na ci ab yokkute yu am solo parce ku ñëw gàmmu Tivaouane wala ziar général da nga dégg lu ñu naan action daara ji action daara ji ñoom ñooy lépp luy sécurité rawatina diwaanu Serigne Mansour si borom daara ji ñooñu nag tabaarakallaa dañoo def engagement bu am solo ne leen allah dañoo fas yéene ñoom it jël seen oto jógee Tivaouane ñëw Koungheul parce dañoo dégg bés bi te bés bi nekkatul lu ndaw bés bu mag la kon ñoom aussi lépp luy xamante nii rek dafa bokk tarixa bi duñ ko bàyyee kenn ñoom dañuy bi waaye duñ ci duñ ci yem jàpp lépp loo xamante ni rek aju na ci bés bi rek incha allah bi danañ si jàpp yemut ci loolu eh, tabaarakallaahu sunu sëriñ maam Abdoul Aziz bi nga xam ne moo baayam moo jox tarixa bi boole ñoo moom daaw a ñëwut waaye ren dafa fas yéene départ Tiwaawan ñëw gane si waa Koungheul surtout Seydi Hadj Malick nag bu ñëw ci taalibe Seydi Hadj Malick rek rawatina ay waxtina ki diwaanu Koungheul loolu yokkute la kon maa ngi ñaan Koungheul yëpp nañ ñu génn lu ñu bés bi waaye ñu ngi ci oo nag ñëpp murit xaadir laayeen ñaseen bàyyiwunu kenn kenn képp koo xamante ni yaa ngi dëkk Koungheul wala li war Koungheul wala ci région bi rek ñu ngi lay woo ci bés bu tedd bu sell boobu incha allah bi nga xam ne le 25 décembre lay am waaye mënuñoo terminer nag xaj matar te santuñ la yow mi nga xamante ni tey wax dëgg at mu jot ñoo koy bokk ànd yow nga xam wax dëgg yàlla góor gi sa waajur la waaye tamit wane nga ko wax dëgg yàlla at mu jot buñ ko jàppee bu ñëwee wax la ko da ngay bàyyi sa yitte yëpp jàppale nga si bu baax a baax a baax a baax ngir yàlla ak sa mbaax ngir yàlla ak sa kóolóore kon ñu sant la bu baax gërëm la ni ñu koy ñaanee at mu jot yal yàlla def ko mooy euh, presse bi yàlla dem ba nu ñuy dégg ci àdduna bi yëpp yàlla am na ko mën na ko yal yàlla defal la ko ci barke yoon salaay salaam moom daal xaj mataar pour terminer ñu ngi woo góor jigéen mag ndaw ñu ngi fi ñëwee nag ci ndégalu suñu xalifa euh, wayjur di docteur Ahmadou gay ak ñoom seex Cheikh Magay ak Serigne Cheikh Tidiane Gaye tabaarakallaahu ak jigéen ñëpp daal ñoom ñoo suñu kilifa waaye ñoo fi aussi ci ndégalu Serigne Babacar Sy Mansour xalifa bi ak ci ndégalu kilifa yi nga xam ne tey ñoo ko nekkal fii Koungheul tabaarakallaahu moom daal woo nañ ñëpp góor jigéen mag ndaw ñi ne ci dëkk bi ak ñi ne ci département yëpp lundi lay doon le cinq decembre incha allah ñaari Baye Fall kër hôpital bi Hadj Matar. incha allah programme bi 100 jours bu ñu xëyee dañuy wàccee kaamil incha allah rabi teewaayu kilifa yëpp bu ñu demee ba euh, bu ñu paree def ay xéewal incha allah rabi bu ñu demee ba ci ngoon gi ñu def suñu lal suñu bayaan daal def wasifa incha allah rabi ren nag am na benn côté aussi mooy sunu mooy euh, wax dëgg yàlla soxna yi. suñu waa daayira yi ak ci ndégalu suñu soxna si ñoom it dañuy benn cocktail bu mag boo xam ne ginnaaw bu ñu ndëkkee pare dañ ko organiser ngir bégalee ko ñi nga xamante ne ñoo yor organisation bi ak ñoo yor ñëpp fu ñëw tabaaraka defal li nga xamante mooy cocktail loolu aussi benn nekkatu la ci bés bi sant lu baax a baax a baax bu ñu ba ngoon ñu wasifa sa 19 heures xale yi nekk ci dëkk bi ñoom ñooy commencé tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam 21 heures dugg incha allah 23 heures yàpp minuit tafsir jël incha allah Euh, sëriñ bi daal di jël waxtaan ak dëkk bi waxtaan ak mbooloo mi sànni ay kàddoom suñu paree ñu ñaan incha allah rabbi ba déwén ak jàmm. rendez-vous bu la 25 doon muy altine bii ñëw incha allah rabbi euh, fii si ñaari Baye Fall ñu ngi ciy invité ñëpp incha allah rabbi